dal leen ak jàmm Walf Quotidien ay weer a ngi nii jàmm amatul ci réew mi ndax fitna gi fi jolli yéen cabinet lu ko dalee ci weeru mars ba tey université yaa ngi nii soobu ci fitna Walf Quotidien xool leen li xew ca ndulumaa ji yàggut foofee ca dëkku cosaanu njiitu réew mi Macky lañ fa jot a taal yéen cabinet feelu ko ne ci jamono joo xamante ne foo romb ci réew mi baat bi tampi fës lool lu ko dalee ca Fuuta tampi maanaam Fuuta sonn na bari na ci gox yooyu dem ñu ba fonk cuur yaa ngoog yéene kaabi di alerte quotidienne bi le tournée présidentielle doon lu jaaxal lool Mamadou Lamine Diallo njiital mouvement tekki ne bi le présidentielle du lenn dudul yàqum xaalis bu bëri ne la ci nguur gi jot a yàq ci koppar toll na ci génn wàllu milliard te xejoon na feneen yéene kaabi di l'info wax ci leneen bokk na ci njiitu réew mi Macky ma nga ci ay tànk maître Abdoulaye Wade ma ngay beral loxo chef de village yi yi leen jox payoor gu toll ci fukki junni weer wu jot a ba muy waaj ngir soobu ci troisième mandat yéene kaabi ne njiitu yooyu le témoigné de ci anam yu ñaaw a ñaaw la nangoo woto chef de village yi xañoon leen seen payoor réew mi quotidien di ñu xibaar ne AFP njiit ma di Moustapha Niass jël na dogal fas yéene jóge ci parti ba ci atum 2022 gi ñu jëm yéene cabinet feneen fu Moustapha Niass leeralul bokk na ci ana kañ lay jógee ci bopp assemblée nationale waxul la ca jëm yéene cabinet di vox kan mooy wutu Moustapha Niass ci bopp AFP bu ñu yeggee ci atum 2022 yéene cabinet bu ñu deful nag mun naa jur xicco ci diggante Alioune Sarr ak docteur Malick Diop ba ci Mbaye Dione ay kàddoom ci Moustapha Niass ne bu sañoon kenn ci ay jege ñaaleem doon président ëllëg li quotidien ne dina jël retraitam ci atum 2022 gi ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Niass waaye coordination bu AFP bu Amérique du Nord seppi loxoom ci AFP ne ndax parti bile dooleem demeetu ni ci géew u Sénégal ceene kaabi di turbine ne ma ngay dem retraite ci géew bi moom Moustapha Niass mi xamle ne bu ñu yeggee ci 2022 dootul jiite AFP turbine gis ne yéex na ko def ci waxtu joo xamante ne AFP dooleem demeetu ni gi ñu annulé ci atum ren ji daanaka dina gàllankoor lu bëri yenn cabinet ba ci voyagiste privé yi lañ cay ñàkk ci koppar dina toll ci ñaari milliards libération ne kawteef gannaaw taximan bi faatu yàggut te ñu sànni néewam ca canal bu Thiès yenn cabinet enquête ba wone na ne jarbaatam loxoom génnu ca teg nañ ko ca loxo direct news ne géej gaa ngi def musiba lu toll ci téeméeri doomi aadama lab nañ ci géej gi ba jaaree fa faatu yenn cabinet boo jëlee Dakar dong lu toll ci fukki doomi aadama faatu nañ fi yenn cabinet gune yaa ngi dem ci géej gi di sangu waajur yi ana meeru gox yi ana nguur gi waaye ana fan la euro 2020 toll yéena cabinet tey groupe B ak groupe C ñoo aaye Belgique Pays-Bas fas yéene jàkkaarloo ci jamono joo xamante Italie qualifié na huitième de finale gannaaw bu mu daanee Suisse ñetti bal ci dara yéena cabinet les arènes Balla Gaye bu daanee Yékini na ko gërëmee Boy Naar bu ñu sukkandikoo ci waajuru Balla Gaye 2 mi xamal Balla Gaye 2 ne bu doonu toon Boy Naar kon doo jëlee ndam ci Yékini yéena cabinet suñu lamb ne gi faral di am ci lamb ji rawatina saay bu jàkkaarloo amee doon ci lamb Doudou Ndiaye njëkkoon ne bu sañoon supporters yi bañ a fekke lii di face à face mbër yi yéene kaabiri sursaane soxna si toll ci juróom benn fukkat ak juróom ameel borom kër ga lu toll ci benn million ak lu teg waaye soxna sa pexe gamu wut fegoog doomam bu jigéen ku toll ci ñaar fukki at benn waay la ñu waxtaanal nar ko fay koppar ngir mu mun leen a faatal borom kër ga su ko defee ñu jaare fa bañ a feyati luwaas yéene kaabiri sursaane soxna soosule ak doomam ja seen pexe ba mujjuta sotti police bu Tuuba jot naa gëstu mbir ya ba faf leen teg loxo yéene kaabiri les écone musiba Sarr ci diggante Sireur gu toll ci ñaar fukk ak juróom benn ak cousin doon xicco client Sireur ba ne client ba faw mu fay lu toll ci fanweeri dërëm waaye jarbaat ba ne déet mun naa Sirel waa ji ay dàllam ci njëg mu toll ci ñaar fukki dërëm ca la coow la jolli ci diggante ñaari Sireur ya ba kenn ka ka ca des génne cabinet te ñoom ñaar ñooñu le ñoo bokkoon benn néeg ca Malika. Ndayaan Imo distribution ak gaamam bi di warga Ndayaan ceebu